rasulallaay waa jaaga medina sayyiduna muhammad nuur abdallaay abdulilaay najlu abdul mutalibi sayyiduna muhammad ibnu arabi hashimi xayr al arabi sayyiduna muhammad ibnu arabi hashimi xayr al arabi ibnu sharifi xawmi abdalmanaam ibnu xusey ibnu kilaab bila xilaaf muhammadu rasulalaay bilaay kenn du sayduna muhammad salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatulah sa zikar gi neex na de macha allah. alhamdulilah <laughs> tey dafa amoon laaj bu ma fi indi. Mhm. ndax yàlla dafa dogal ñu nekk ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu mhm. di séentu weeru shahru Ramadan Oustaz lan la ci lislaam wax. <laughs> jërëjëf Serigne Diaw laaj bu am solo. Euh, tey ñu ngi ci ñaar fukk juróom-ñeent comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, mu nekk bis bu njëkk pour séentu li nga xamee ne mooy weeru yërmande bi. Mhm. muy weeru koor. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag euh, li ci wax mooy bu waxtu bi jotee na doomi aadama yi commencé xool weer wi ku mhm. mënul a séentu na nga yónnee ñu séentul la wala nga xool ki nga wóolu bu séentoo bu la waxee nga jàpp li nga xamee ne moom la wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne suumu. li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yonent bi mu ne woor leen boo gisee weer wi waaye itam boo leen gisaatee weer wi ngeen daal di wori mu tekki nag fa in ghumma aleykum fa akmilu sha'bana mhm. su fekkee ne ñaar fukk ak juróom-ñeenti ni ki tey mhm. gisuñu weer wi mu ne su boobaa nag nañ mottali lii di weeru baraxlu wi fanweer mhm. nga xam ne ca ginnaaw ëllëg sa ci la ñuy daal di woor buñ mottalee fanweer nag amatuñ seen weer ndax weer moom ñaar fukk ak juróom-ñeent rek la wala wala fanweer. Mhm. moo tax suñu borom subhaanahu wa boo demee ci suratu baqara muy euh, suurat la vache. Mhm. surat numéro 2. yàllaa ngi wax naan man shahida minkumu shahra euh, falyasumhu mhm. mooy aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom 185. yàlla nee na képp koo xamee ne gis nga weer wi wala gisal lañ la weer wi wala benn jullit boo woolu gis na weer wen nga war xam nga weeru koor mhm. euh, li tax mu garaw mooy benn jullit bu gisee weer wi rek jullit yëpp a war a woor mhm. waaye bu fekkee rek ci korite la euh, ñu ngi séntu weer wi pour korite benn jullit doyul su boobaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nañ mat ñaar ñetti jullit yoo xam ne ne ñu dëggu lañ ñu ko seede waaye mhm. fi ñu toll ni moom benn jullit boo xamee ne gëm na yàlla bu gisee weer wi dañuy woor gis nga ci jamono yonent bi dafa am benn araab yi bu jógee woon ci kaw bi ñëw bi muy euh, mu ñëw egsi la yonent bi man de gis naa weer wi ci yoon bi mhm. fekk ñu ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ni ci bis tey mhm. yonent bi ne ko ndax gëm nga euh, ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mu ne ahan kay ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah yonent bi ne bilaal demal ci jumaa ji nga yéene ne suba na ñëpp woor kon benn julli rek bu gisee weer wi ñëpp dañu war a woor loolu mooy man shahida man shahida minkumu shahra fal yasumu shahida boobu nag nekkul gis ak bët ku ko gis baax na kuñ ko gisal baax na ko woolu bu waxee nga dégg bu waaw dafay daal di baax kon daal li ñu war mooy ñu woo euh, seentu weer wi tey buñ gisee suba ñu woor buñ gisul ñu mottali fanweer ginnaaw suba ñu daal ñu daal di woor wallahu taala alam huwa almuraadu min jamii alxalqi sayduna muhammad هو المكرم بإذ سبخي هو سراج في السماء والأرض كوكوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المراد من جميع الخلق هو المكرم بذي سبخي هو سراج في السماء والأرض مملا جبر سبحانه وتعالى وحنا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا هو المراد من جميع الخلق وهو المكرم بعز سبخ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى هو سراج في سماء والأرض وهو شريك لنا والبعد Cheikh Saad Bou bi mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom subhanahu wa taala tànn ca kaw asamaan mu gën ña fa nekk ñépp waaye moom la tànn fii ci kaw suuf mu gën la ca nekk yëpp moo tax suñu borom ne ko walal axiratu xayrun laka minal ula yowmal xiyaam ñu man sa borom subhanahu wa taala dinaa la jox yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga daal di gërëm huwa alladi uxtiya ma yashaau sayduna muhammad kooku mooy bàyyi fatima mooy bàyyi roqeya mooy bàyyi zeynabu mooy bàyyi umu kalsum kookoy bàyyi abdullahi abal xaasim waaye abal ibrahim saydina muhammad wa mislahu lam talid nisaay ku mel ni moom jigéen musu ko jur te jigéen du ko jur ba yow ma xiyaamati Serigne Diaw. salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah. macha allah alhamdulilah leer na alhamdulilah macha allah.